mbégte laa ci am mbégte bu mag a mag parce que doomu Tiwaawoon laa comme ni ma koy faral di waxee mais aussi yàlla def ma nekk député à l'Assemblée nationale tey bu ñu toogee ba jeunesse su Tiwaawoon xalaat. Euh, jox ma li nga xam ni mooy marrainage bi dama ci am beaucoup de plaisir ak beaucoup de satisfaction parce que responsabilité la quand même ñi fi nekk bëri nañ mais ñu porter seen choix ci man sàmm me sur la position à la position sur laquelle que mooy Tivaouane benn la kenn mënu ko xar ñaar et que bu la yàlla joxee ndombel tànk faw parfois nga ciy dugal sa loxo pour ànd ak jeunesse bi liggéey pour Tivaouane waaw ci wàllu tàggat yaram d'abord damay remercier le ministre Matar parce que depuis bi ñu nekkee à l'Assemblée nationale yàlla def na mu ñuy jàppale bu baax a baax du tey la ñu commencé wax ak moom ci mbiru Tivaouane rawatina ci sport yàgg nañoo wax ak moom ci stade municipal bi yàgg nañoo wax ak moom ci des infrastructures yuy permettre équipe handball bi ak équipe basket bi mën a mën a euh, am ay jumtukaay pour mën a liggéey bu baax loolu du tey mais nag bi biñ ko ko dalee wax ba léegi mu ngi ciy def ay jéego am solo liggéey bi bëri na mais quand même ñu ngi koy remercier parce que bàyyi na xel ci waawan donte nag euh, li muy li koy xaar dafa bëri ndax c'est un ministre boo xam ni c'est un ministre national dëkk bu ne bëgg nga mu def mu ñu def fa dara kon bu ci Tiwaawan amee mu ñuy bàyyee xel dañ ko ciy sant di ko wax ni rek di ko gën a ñaax parce que amuñu lu dul Tiwaawan tey bu ñu nekkee ndaw nekk assemblée nationale sunu responsabilité mooy ñuy réaliser les projet te ñu ngi ci ministre bi bàyyi nañu xel d'ailleurs wax na ko sànq nee na incha allah nous allons entamer les projets yi nga xam ni moom lañ doon laaj à l'Assemblée national muy lu mel ni réfectionner le stade ak euh, def fi benn centre multi multidimensionnel pour l'équipe handball ak euh, l'équipe basket bi nga xam ne vraiment ñu ngi liggéey liggéey bu am solo fii ci Tivaouane. liggéeyu ndaw ñi c'est une question boo xam ne ça interpelle tout le monde du Tivaouane kese du Sénégal kese c'est une question mondiale. mais li am solo rek mooy dañoo nekk ci zone boo xam ne c'est une zone purement minière wax dëgg fa yàlla ñuy laa ñuy ñaan entreprise yi mel ni ICS ak entreprise yi mel ni GCO vraiment ñu gën a yokk seen seen i effort ci emploi des jeunes ndax Tivaouane comme ni ngeen ko xamee c'est une zone boo xam ne la population et relativement jeune tey bu ñu jëlee ndaw ñu ñuy ñuy liggéey dina am une impact économique boo xam ne dina am rek répercussion fii si fii si si dëkk bi en tout cas ñu ngi ciy dox yàgg nañ ci wax ak ministre yi nga xam ne ñoom ñoo seq wàll boobu yàgg nañ ci wax ak entreprise yi foog nañ ni nag di si ñuy dem plus ñuy avancer des efforts seront faits en tout cas tollootuñu fu ñuy waxee mais fu ñuy jëfee la te sunu voix nag yàgg nañ ko wax ñu koy dégg à l'Assemblée nationale la jeunesse de Tivaouane a besoin d'emploi mënuñu nekk ci département boo xam ne am na ay ressources minières te population Tivaouane du ci yëg boppam loolu dinañ ci gën a taxaw ndax buñ ko defee moo ñu war buñ ko deful loolu moo ñu war ñaan nañ nag am nañ espoir nag wax dëgg fa yàlla parce que nag quoi qu'on puisse ay projet bëri na ci département bi mais allant dans ce sens nous allons encore porter le combat espérons espérant fortement que rek notre voix sera entendue. D'abord c'est un plaisir et un honneur d'être désignée marraine de cette euh, finale, d'abord en tant que citoyenne de Tuawan, mais aussi en tant que euh, députée à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le sport, c'est des moments de partage, c'est des moments de communion entre jeunes, mais aussi c'est des moments où la jeunesse se retrouve autour de l'essentiel. Parce que le sport, comme on le dit, est un, un, est un, est un moment de, de fédération. En tant que jeune aujourd'hui, euh, ces deux ASC, la, la, la zone A, euh, a porté le choix sur moi et je ne peux que m'en réjouir. Remercier toute la population de Tuaon, mais particulièrement la jeunesse, la jeunesse euh, dont j'ai la responsabilité de représenter à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est un plaisir d'être la marraine de cette journée. Oui, c'est un moment quand même qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le ministre des Sports est là, Matarba, Il y a mes collègues de l'Assemblée nationale qui sont, qui, qui sont là pour me soutenir. En fait, c'est un moment de soulagement qui m'a permis de comprendre que au-delà de l'Assemblée nationale, quand même, il y a des collègues avec qui je tisse des relations très humaines et ça me rassure et ça me réconforte sur la position, à la position sur laquelle je, je suis, parce qu'au-delà de la politique, au-delà de, de l'Assemblée nationale quand même, Nous, nous devons vraiment de partager avec les gens qui sont là-bas des moments de quiétude, de paix et, et de, de, de, consolidation en tout cas. On toujours fait, on a toujours porté euh, cette plaidoyer, plaidoyer à l'Assemblée nationale parce que quand même nous avons une obligation première de penser aux préoccupations des, des, des Touawanois, particulièrement de la jeunesse. Nous avons toujours dit au ministre de soutenir la jeunesse par rapport au stade municipal, mais par rapport aussi à un cadre multifonctionnel pour permettre à cette jeunesse de Tuan qui aime beaucoup le sport, vraiment de se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Et il l'a toujours compris, Monsieur le ministre à l'Assemblée nationale, il a toujours compris que Tuaon a besoin d'infrastructures et malgré toutes les turpitudes de son ministère quand même, il est en train de faire des efforts dans ce sens-là et je l'en remercie. parce que quand même vous savez que le ministre est sollicité et que y a beaucoup d'attentes, mais quand même il a compris que Tuaon est un enjeu, Tuaon a besoin d'infrastructures et il n'a ménagé aucun effort pour cela. Effectivement, l'emploi des jeunes est une question primordiale, une question qui nous interpelle nous tous. Mais il, faut, il faudrait comprendre que ce problème n'est pas seulement spécifique à Tuaon. Ce problème n'est pas seulement spécifique au Sénégal. C'est un, un, une question d'une dimension mondiale. C'est une question qui touche pratiquement tous les pays. Mais comprenez que des efforts sont en train d'être faits parce que quand vous voyez tous ces projets qui ont été mis en place, euh, ça réconforte en tout cas notre position sur laquelle le président de la République, sa vision, c'est d'abord les femmes mais aussi les jeunes. En tout cas, surtout par rapport au sport quand même, reconnaissons que le ministre est en train de faire des efforts concernant la jeunesse. Au niveau des mines, ça c'est un autre débat. Ça, c'est pas le ministre du Sport. être c'est une question qui nous interpelle en tant que parlementaires. Et nous avons toujours porté le combat. En tout cas, que ce soit les ICS, que ce soit GCO, en tout cas, nous avons toujours eu à demander à ces, à ces, à ces, à ces ministres vraiment de, de penser à Tuawan parce que quand même nous avons une zone minière très importante et que la jeunesse doit pouvoir s'y retrouver. En tout cas, c'est des moments assez difficiles. parce que nous venons juste d'arriver, mais comprenez que nous portons le plaidoyer et nous espérons fortement que ces entreprises-là vont nous entendre. Parce que Tuaon, quand même, a, une population relativement jeune et que à travers ces, ces, ces entreprises-là, vraiment, nous pouvons apporter en plus à Tuaon en aidant ses fils vraiment à avoir du travail, mais aussi à être impliqués dans la...